sa loxo set sa lépp set bul nuy kenn bu lëng ken bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jeg jege kenn sëkkat fee boobuy métti njëkk a feeñ soj problème mu nooy sen sa bakkeen sëkkat fee but buy métti malaise feeñ du rey nit ku ñuul si ñu xamul dëgg ak feeñ sa loxo set sa doomi set bul nuy kenn bu lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sa loxo set sa lépp set bul kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg xeex ak coronavirus microbe jàngoro la dunit àdduna nekk ci combat du gis ku muy xeexal niroo naa grippe nañ éviter contact physique xajul Grand Yoff Colobane tax ba ñu annulé programme yu siw tax ba ñu foog ne adunaay tukki médecin sonn na ci li amul vaccin ordonnance tamit mu ngi rey day toroxal nit yi bu ñu toogee dina bëri ay victime seet ci sa askan seet ci sa bopp tëju te bañ a seet sa mbokk julli sa makkaan mees ci la bokk xeex ko mu jeex mbir yëpp mën a dox masque saabu antiseptique raxasu sangu daari set wicc dal muñ bañ lu mel ni des fii gën di ñaant jàmm day dégg sa loxo seet ah, euh, sa lépp seet bul nuyu kenn ngeen nuyul ñu mataar bu baax a baax a baax a baax ngeen ne ko ñun gis nañu liggéeyam démb ak tey yàgg na moom ak makki euh, sàll ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla wëral seen i cër li ñuy def ci réew mi gis nañu ko depuis ba feebar bi commencé ba léegi ñu ngi gis ñuy jóg di génn ak mboolem équipe bu leen di jàppale feebar bii nag dugg ci réew mi ni ngeen ko waxee dëgg la nit ñi nañu déglu li docteur yi wax président daw na ba sonn ministre yi daw nañu ba sonn li ci des ñun ñooy population bi daw rawale sa bopp rawale sa njaboot rawale sa bopp rawale sa njaboot bu ñu la sangul sa taar la ñu bëgg mhm. donc lii mataar def yal na ko yàlla ful yal na ko yàlla bind ci téere jëfam liñ ci kii nag mooy population bi rek mbir mi du loo xamante ni parce que barke démb laa dégg ñuy wax naan ndax am naa amul loolu ëpp naa xalaat feebar bi la muy def bitim réew ëpp naa yegg si fii donc yal na yàlla euh, mottali ñaan yi te feebar bi mu daq ko ci àll ba waa Mindiss TV wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax ak mbooleem média yi nekk Fatick ak mbooleem média yi nga xamante ni ci Sénégal di wasaare xabaar bi pour nit ñi ñun de yii de dinañu ko jëfandikoo bu baax a baax a baax sa loxo seet sa lépp seet bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sëkkat fee bopp buy métti njëkk a feeñ soj problème mu nooy senn sa bëkkeen sa kët fee but buy métti malaise feeñ du rey nit ku ñuul si ñu xamul dëgg ak fee sa loxo set sa doom yi set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génne kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sa loxo set sa lëpp set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génne kese ndax bëgg génn xeex ak coronavirus microbe jàngoro la du nit àdduna nekk ci combat du gis ku muy xeexal niroo naa grippe nañ éviter contact physique xajul Grand Yoff Colobane Pikine tax ba ñu annulé programme yu siw tax ba ñu foog ne adunaay tukki médecin sonn na ci li amul vaccin ordonnance tamit mu ngi rey day toroxal nit yi bu ñu toogee dina bëri ay victime seet ci sa askan seet ci sa bopp tëju te bañ seet sa mbokk julli sa makkaan mees ci la bokk xeex ko mu jeex mbir yëpp mën a dox masque saabu antiseptique raxasu sangu daari seet wicc dal muñ bañ lu mel ni des fii gën di ñaante jàmm day dikk sa loxo seet sa lépp seet bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg a génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sëkkat fee boobuy métti njëkk a feeñ sa problème mu nooy senn sa ba kenn sa kër feeb buy métti malaise feeñ du rey nit ku ñuul si ñu xamul feeñ sa loxo set sa yi set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sa loxo set sa lëpp set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn sa loxo set sa lépp set bul nuy kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sëkkat fee boobuy métti njëkk a feeñ chaque problème mu nooy senn sa bakkeen sëkkat fee but buy métti malaise feeñ du rey nit ku ñuul si xamul dëgg ak feeñ sa loxo set sa doom yi set bul nuyu kenn bu lëng kenn bul génn kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sa loxo set sa lépp set bul nuyu kenn bul lëng kenn bul génn kese ndax bëgg géex ak coronavirus microbe jàngoro la dunit àdduna nekk ci combat du gis ku muy xeexal nirona grippe nañ éviter contact physique xajul Grand Yoff Colobane Pikine tax ba ñu annulé programme yu tax ba ñu foog ne adunaay tukki médecin sonn na ci amul vaccin ordonnance tamit mu ngi rey day toroxal nit yi bu ñu toogee dina bëri ay victime